nanga nga socc ban naay te xam ne da nga nar reetaan ba ñàkk bi toog lii rek mënoo ko jàll ne demal. moo général la wax la wax la ma ko. bismillah ak demal. tuwadaa jot jotati jotaale waxtu xibaar yi ci kàllaamay kocc ci leeru jamono ñu nuyooti leen bu baax yéen ñi sopp sa foo saxoo taatine xibaar fii ci Walf TV télé bi lamboy xar baax te koy wasaari ci àdduna li gën a fës ci xibaaru marax yi bokk na ci nag kon euh, njëkk ndox mu tar foofee nga xam ne nii moo di ca euh, diwaanu euh, fi nga xamante nii moom moo di fi ñuy wax kon ca Koungheul dëkkaat bi nga xam ne nii moo di Piram Mandax askan ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fa yeewoo la ñu wax mooy dañu bëgg ñu taxaw leen ngir nag ñu am kon ndox mu sell mu ñu mën di jëfandikoo ñu jaari nag ci li nga xam ne nii euh, moom moo soxal ziara annuel bi fa doon def amal ngir mën koy biral noonu it bokk a am nañu seen lijaas ci daara ji la di Pastef ci atum euh, ñaari junni ak fukk ak ñett di 2013 euh, toll ci téeméer ak ñeent dara dañoo bëgg leen ci daara yi ngir door seen liggéey di jàngale tax ñu utal noonu lu gën a fës ci bopp xibaar yi li nga xam ne moo soxal mbas mi di covid 19 coronavirus ni muy nawee ci réew mi euh, tax nag ñu lëkkaloo ci kuréel gi di g euh, wax ni li nga xam ne bëgg nañ ko mooy ñu aar jàngalekat yeeg euh, jàngaat yi ak daara yi ba mbas mi du mën a law bu baax li ñu wax nag mooy li ñu wax protocole sanitaire dañ ko war a gën a daal di ci taxawu ngir nag mbas bi ni muy yokkee lu doy doy war te itam nag seet naka lañuy ñuy kuréel goo xam ne ah, daañu taak di saytu mbas mi ni nga xam ne noonu lay lawee li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi bu ñu ko faram-fàccee ah, sof ci xibaar yi ñeel ah, biti réew des na dem ca Nigéria jaar ca Somalie jeexale jee ca fi nga xam ne nii moo di tsunami bi wala ci ànd ci sëriñ gi ci nu mu gën a yaa tey simila àdduna wërngël képp xibaaru marax yi dañu koy daal di doore ak lu soxal euh, ñàkk ndox mu tar ca diwaanu file di Piram Mandax foofule nag euh, ca Koungheul askan wi nga xam ne ñoo fa yeewoo dañu yëkk ci seen i kàddu wax ne euh, li nga xam ne nii moo di ndox mu sell lu jaadu ci ñoom la tey itam dañ leen cee war a taxawu ñu jaare nag ci ziare annuel bi nga xam ne doon nañ ko amal ngir mën a biral kàddu yi le dañ ciy teewlu Al ba ci nu mu gën a yaa askan wa yeewoo ca Piram Mandax di ab dëkk bu bokk ci département bu Koungheul ca commune bu fas Fass Cekkeen am njaaxle loolu fësal ko nag ci ziar bi ñuy amal at wu ne nee nañ lii leen di courant ak ndox bokk na ci jafe-jafe yi leen gën a sonal. mooy lu aju na ci mbiram courant dañ ko soxla lu aju na ci mbiram ndox it dañ ko soxla ndox la dëgg la am na fuñ branché wu ci ndox mais ndox mi loxo yi nekkoon ak ca jam tëg ak actuellement ni loxo yu mu am na wuute. loola ñu ngi ciy dund ay difficultés yu métti métti métti yoo xam ne ci wàllu qualité ndox bi ci wàllu quantité ndox bi en même temps ci wàllu li nga xamante ni noonu la ñuy fayee ndox mi. depuis ba léegi kese la ñu fii benn forage boo xamante ni ba léegi mënoon ñu koo tabaxal seetadoo. ngir dem ca piram màndax daanaka yoon amut rang-rang bi fa nekk rang-rang yi ci ay pax ba àgg lay doon. yoon bi la tàmbali Koungheul ba keroog nga yàgg Fass Cekkeen am na raara mais raara bi buñ la waxee raaraan bi ñu leen amagul cinq ans wala six ans da nga koy weddi. te li fi yeewoo ci doomu aadama mën na ñaari junne nit imaginer dëkk bu toll noonu fii ci senegal amul yoon bu baax digganteem ak national ba di Koungheul onze kilomètres. dem ba ci wàll wér-gu-yaram sax ñenn ñi taamu dem Gàmbi faju tax ñuy sàkku ci ñu jox leen li ñu yeyoo. situation faj mi ni ci senegal dina tax sax ñu àkk hôpital yi Gàmbi. da ko ñu premier mandat amuñ ko da lay def fi wax sas tekkeen li paam ñun daal ñuy taal suñu loxo may fay Sall jàppale jigéen ñi Birame Mandax. tey jii nag bu Birame Mandax ndërmeelu wut ndaw ya fa yeewoo ñoo tax. li fi jot am ak néew jeunesse bi ñoo man ko joxante lox créé seen association moo tax lépp loo fi gis comme développement ñoom jeunesse bi ñoo ko fi def jeunesse boobu tey ñoo tabax seen mosquée bi ñoo fi defar mbaar mi tabax cimetière yi. góor góorlu ba sunu poste de sant bee sax la fa jotoon nekk ka garab senes bi ñoo ko fa def. ñoom nag askan wa pëtëxluwaat ci ziar bi ñu fiy amal lu ëpp juróom fukki at ne ñu ngi wàcceek lempo ci ni ko yoon bëggee kon nag lu ñu soxla nañ leen ko defal la ca na mu gënee Piram Mandax Alhassane Ba Yaya Gissé Walfadjri jaajëf Al Assane Ba bu ko defee dañu daal di wax bi la yoon ci li soxol ñi nga xamante ni kon euh, am nañu seen lijaasa ci daara jile di Pastef ci atum ñaari junni fukk ak ñett 2013 euh, lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom euh, ci ay ndaw wax ne dañu bëgg ñu boo yóbbu leen ci daara yi ñu door seen liggéey di jàngale wax nañ ne nag booba tey ñu ngi ko wax kenn wuyu leen tax tey jile ñu àndandoo utal si groupe Walfadjri ngir mën a biral kàddu yi le dañ ciy teewlu Alfousseyni Keita ci jokkoom ak soxna Ndiémé Ndaw ñun ay professeur lañu yoo xamante ne dañu leen tàggat si école boo xamante ne mooy tàggat ay professeur mooy FASTEF ex école normale foofu la ñu jógee depuis 2013 ñu pare suñu formation am suñuy lijaas maanaam suñuy diplôme nar a dem jàngale ji mais depuis lors ñu ngi réclamer suñu affectation. am na benn pàcc benn nombre boo xamante ne dañ leen recruter ñoom actuellement ñi ngi sur le terrain ñu ngi jàngale ji mais malheureusement am na benn pàcc boo xamante ne. ay professeurs yoo xam ne ñu ngi réclamer ñu ngi laaj seen seen OS pour ñu affecté leen ba léegi mënuñu leen affecté alors que def nañu ay ay médiation def nañu ay ay ay point de presse def nañu ay grève de la faim rencontré ay autorités yoo xamante pas plus tard qu'au mois de décembre les autorités du ministère de l'éducation dañuy woo ñu ne ñëw leen ngeen déposé seen dossier ba léegi ñu ngi xaar décembre be léegi yàgg na. am na suñu yeneen xarit yoo xamante ne ñoom dañuy jël gaal gi. pour dem uti feneen ñun du ñu def loolu parce que Sénégal fii lañ juddoo fii lañ màggee te dañu bugg a gëriñ suñu réew. bugg ñu jaar ci vitesse supérieure te xam naa ne autorité ñu ngi leen déglu parce que trop c'est trop juróom benn juróom-ñett at du du benn du benn fan du ñaar fan yàgg na kon nañu régler problème bi nu mu gën a gaawee loolu lañu soxla te école sénégalaise dafa solaay ay jàngalekat jàngalekat yi ñu ngi fii téeméer. ak ñeenti fukk ak juróom professeur loolu loolu du dara boo xoolee même benn dëkk sax mun na absorber nombre boobu loolu moo tax ñuy lancer appel au président de la république li cri de cœur la parce que jeunes yi dañuy sonn soo ko defee ñu daal di wéyal wax ci lu soxal jàng ak jàngale mi waaye mbas mi di Covid 19 ni muy lawee ci biir daara yi euh, euh, euh, tax na kuréel gi di G20 ëmboy jàngale wattu seen ak ak la ñu wax mooy na nguuru ko jël ay matuwaayam ci li ñu wax protocole sanitaire ñu daal di koy wàccoo ci mboolem daara ngir lépp loo xam ne nii mën na yokk mbas mi de mën koo dogale mën a yi aar itam jàngalekat yi aar daara yi ñu wax ne itam jot nañu teg kuréel goo xam ne nii ci daara yi daañu seet mbas mi ni muy lawee ngir mën koy gatandu Mamadou Tamba lañ ciy teewli kàddu donc ci jokkoom ak Sofiatou Cissé te dañuy dee daal at nañ au moins ñetti yoon janvier def nañ ko mais aussi def nañ ko mois de décembre am na benn déclaration bi defoon pour au moins artu nguur bi pour mu jël ay matuwaay pour bañ école bi doon euh, béréb bi nga xamante ni bu ñuy saare buy lawal euh, jàngorom euh, coronavirus bi parce que école ñi fay nekk ñi fay xëy élèves yi ak enseignants yi ak ñi fay liggéey toll nañ au moins ci boo jëlee population sénégalaise maanaam ñetteelu xaaju population sénégalaise moom moo fa nekk luñ toll noonu nag boo ko aarul ci bi jël ay mesures urgentes yu sérieuses yi nga xamante ne yuy aar élèves yi defe naa doo aar li nga xam ne moom mooy population sénégalaise bi te danger boobu nag moom lañ bëgg a moom lañ bëgg a xeex pour Sénégal bañ a loru ci euh, ci jàngoor bari ñu Sénégal bañ a lor développement Sénégal ah. am na yuy jël matériel yuy jël mais dooyul dafa dooyul te aussi ministère éducation nationale la mu jël dooyul ak enseignement technique mais aussi mairie yi si seen bopp dañuy fàtte ni école seen dafa war a doon seen priorité également aussi parce que dafa bokk si compétence transféré yi am na benn commission d' bu amoon te commission boobu nag maanaam am na jàngalekat yi jàngalekat yu bëri yi nga xamante ne dañ leen fàtte maanaam ber leen ñu war a avancé avancé ñu te ñu koy jooytu nag moo tax bu fekkente nguur bi jëlul ay matuwaay bay corriger loolu maanaam indi ay saafara ci ñaari poñ yooyu G20 fas yéene na jël ay responsabilité am jëm jël ay euh, ay maanaam euh, jëm si li nga xamante moom mooy action syndicale d'envergure parce que am ñetti yoon te léegi fu mu ne ni mënatuñu xaar parce que jàngalkat yi ak élèves yi ñu en danger permanent permanent donc mu nekk su ko defee ñu daal di lu wax bi la yoon ci lu soxal mbas mi di Covid 19 coronavirus ñi mu sonnal bari na euh, bokk na ci sax ñi nga xam ne daan nañu euh, yor li nga xam ne nii moo di seeni i ak seen chaise euh, daan ko luye ci ay xew yu demee noonu yor itam li nga xam ne nii moo di seen jumtuwaay yoo xam ne daan ko yittewoo ci ay xew-xew. wax nañu ne nag mbas mi at mi nga xam ne def na ko fekk lu topp lottu nañ ci lool ba yegg ca tax ñuy sàkku ndimbal ci nguurug Sénégal yaay aadama Diallo. ñu yëngu ci wàllum louer bâche ak chaise rëccuñu benn yoon ci jafe-jafe yu Covid jur seen liggéey nekkoon lu am njariñ te di leen teral daa mujj tàggatémbe ndax mbas mi le ñiy bokk ci kuréelu union des acteurs de l'événementiel du Sénégal ñuy dellu si waat si jafe-jafe yi nga xam ne mbas mi jur na ko. dañ ko dundee nag xëy na bu ñu ko doon développé fii dinañ jël temps bu bari mais ku nekk xam na ni événement dafa bokk si dundu doomu aadama am na ngénte am na dëj. Ah, am na takk euh, mariage am na xawaare am na lépp donc euh, lépp lu ciy waay di def rek il faut nga wooñu ñu organiser la taaral la ba mu baax donc xëy na nag ñun loolu moo nekkoon suñu gagne ci loolu lañ doon gis suñu bopp di ci yor suñu njaboot yor ci suñuy soxna di ci dimbali suñu ay wayjur suñu ay proche dafa naa loolu euh, ku ne mettiwul rek xëy na da nga am peut-être beneen revenu bu dul revenu boobu. ñi nga xam ne dañuy yëngu ci mbirum bâche yi ak chaise parce que depuis boobu ba léegi bon luyeetuñu baas luyeetuñu chaise éléments yi dem nañu bon. liggéey bi daal mangoog li yàlla xam doy ba tey ñoo ngi xam ne rek ni jotuñu benn yoon seen wàll ci fond force Covid 19. Mm, dañuy wax euh, jotuñu dara euh, li may wax ni xëy na man je ne la pas de la communication mais euh, xam naa ci parce que maa ngi ci biir groupe bi te ñu ngi évoluer ba fi may wax ak yow nii nii non seulement euh, jotuñu ci fonds force Covid 19 yi mais mën a am contact ak suñu ministre de tutelle sax c'est tout un problème ci ñun. parce que dégg nañu récemment les acteurs culturels euh, alloué nañ leen benn montant bu deux milliards et alors que ñun demoon nañ sax assister si bi ñuy def marché bi si place de l'Obélisque donc mais ñun loolu nekkul woon suñu objectif puisque ñoom loolu ñoom lañ ko alloué donc ñun xëccoowuñ ci xeexuñu ci. ginnaaw loolee ñoo ngi woo seen jëwriñ gi leen jaboote ngir ma wàllu leer. parce que tey mën nañu wax ne tey montant boobu bañuñu ko mais gisuñu ko parce que ñun dañu bëggoon lu gën a concret loolu lu gën a concret mooy au moins ñu am relation ak suñu ministre de tutelle mën a toog ak moom waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi ñu jànkonteel bu ko defee luñ ñu si état bi mën a jàppale nag. benn at ginnaaw ba mas bi wéyee di lëmbe réew mi te ñu bëri ci askan wi ñoom ñi nga xam ne seen liggéey mënta ñàkk ci xew-xew bu mu mënti doon ñoo ngi métitlu seen alal ak bagage yi nar a naax saay ndax ndax ñàkk xëy bu ko defee ñu daal di wéyal wax bi la yoon ci li nga xamante ni moom moo soxal kon euh, lu soxal tuuma yi nga xam ne nii yëkkati nañu ko jëmi ci kili di Ousmane Sonko loolee nag di loo xam ne euh, kili di Mame Khady Ngom mi nga xamante nii dégg nga moom mooy euh, wéyjuram ca diwaanu Bignona kon am na naqar lool ci li nga xam ne nii yëkkati nañu ko jëmee ci doomam di Ousmane Sonko dañ ciy teewlu ay kàddoom ci jokkoom ak Amady Khalilou Diémé. ni ko ñëpp dundee laa ko dundee rek du lu ma neex. parce que su ma nee neex na ma wala su ma nee aw ma lu lu tàng xol